ngi lay ñaan nga ngay seen noonu bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibn abdillah kon mi ngi la doon wax ci wàllum tuub euh, ci buntu boobu la nekk ba tey mu ne wa hakada niki nii la raddul mazalimi delloo tooñaange jamiam boole seen yuaddu def na ko lim min surutiha mu bok ci sàtti tuub indal mutiin fa aji top ja neena bo boo ba nga xamé ne yaangi ngi bu dee ne tuub ay ak jambour da ca aji won muy ay tooñaange yoo xam ne tooñoon nga ko ay doomu adama delloo tooñaange yooyee nag nee day bok ci sarti tuub xam nga bu le mom yaak sa ak sa borom rek la sarti yé mu la waxon rek bu ca dajé mu daal doy waaye nag bu dee doo àqi doomu aadama la ca aju moom a àq jooja nag faaw nga delloo ko ba pare nag doo ko dem tuubi comme nee ma la ko waxee wa loolu mu ngi woon ci bunt bi bu dars bi njëkkoon a jàng maanaam leçon biñ njëkkoon a jàng waxoon na ci sarti tuub léegi nag danga cay yokk bii nii mu la wax nii muy delloo tooñaange yi bu dee ne ay tooñaange da ca aju bu dee ay àqi doomu aadama yoo tooñoon deme noonu loolu danga ko war a delloo لأنه جرناك موم فرد فرط على فمن تركه كوباي باي مخففا نرمنا أجي ويفرق فقد عنسى موين ملكه بروم نحن هنا آه توب غوغي توب بلين أقد أي دوم آدم رجاء أجو لمن دا جلون على لي جامور ولا نغا يقون ديرو نيت ولا ديمنون نينا لولا نغا ديلوكو day nekk farata képp koo xam ne nag defu ko ngir woyefal ko rek jàpp ne daal du dara moom sawaay yooyu daal taxawut nee na kooku na jàpp ne mooy na yàlla ndax yàlla ci boppam moo tere ak tooñ waaw ah, te ku tooñ it danga ngaa war a jéggalu dégg nga dafa wax ne ah, xaraamal naa ci sama bopp tooñ waaye it ma def ko muy lu xaraam ci seen diggante bu leen di tooñante ah, mu wax ci حديث القدسي بن حرمت على نفسي الظلم وجعلت وجعلته بينكم محرما كن نك فلا تظالموا كن نون لاكو واخي كن كيب كو توغ نيت وارغا ديلو توغا غوغي بوي توب كن لولو بنكو ويفال Euh, summa al ma topp tooñaange yee nag atal dikk na xismay ne di ñaari xaaj am ay alal enradan ak i der bi xëyri may ni ci loolu nar nee na nag tooñaange yi nga xam ne nit mën na ko tooñ morom doo aadama dañ koy xaaj ñaari xaaj fal yardu di na delloo al amwaala alal ya lil arbaabi ñeel seen seeni borom in wujjidoo neem fekkeef na leen ak dahra ci jamono bi la tiyaab ji lu ñaari xaaj yi mu la waxoon noonu mooy mooy xaaj bu njëkk bi mooy alal nga tooñ leen ci seen wàllu alal nga jël alalam nga fëkk alalam nga sàcc ko nga triyaa ko noo ko mën di jëlee te te te ci loolu mooy xaaj bu njëkk bi xaaju ñaareel bi mooy nga tooñ leen ci der ci der nga xas ko wala nga jëw ko wala nga saaga ko demee noonu wala nga tuumaal ko yooyu ñaari façon tooñaange yooyu moo am léegi nag bu dee alal bu dee alal la nga xam da nga jëloon alal la ak noo ko mën di jëlee te d'accord ca maanaa xolam seddu ca àndu ca bu boobaa booy tuub war ngaa delloo alal joojee kan ko jële woon ci moom te muy te mooy boroom bu dee ne ñi ngi dund ba léegi waaw mooy in wujjidu ak dahra bil artiyaabi mooy bu dee ne ñi ngi dund ba léegi war ngaa dem delloo leen alal ya summa ida lam yujadoo topp nem fekkee fu leen fal yardu dina delloo li waarisi ñeel seeni war way doon bilaa tarat duñ ci du deng deng bu dee ne ñoom ña moomoon alal ja nga jëlee woon ko ci moom wala ka ko moomoon nekkatul di dund kon da ngay dem ca ka ko war a doon bu dee mbooloo la nga dem ca ña ko war a doon nga jox leen ko leen kat ah seen waajur wa fi jóge woon wala seen yaay ji fi jóge woon wala nangam moom laa ko amee loon dégg nga kon moom ci boppam bu fi nekkee da ngay dem directement delloo ko ko moom borom ma ko ma ko moom bu dee nekku fi nga xam ne na fi nga dem ci ña ko war a doon nga jox leen ko parce que ñoo ko moom bu boobaa su ma isaalam yu juddoo topp ni mu fekkee fu leen tasaddaqaana sarafe xanum walis ñoom bi ci alal ja kazanik ni xakaa la man kaa xam ne xaq xaa dëggal na bu dee ne euh, ñoom xamoo maanaam waaja ci boppam faatu na ña koy doon di benn faatu nañ wala xamoo leen dégg nga kon bu boobaa da jël alal ja nga saraxe ko ngay jël alal ja nga saraxe ko wala sax waji ma ngay dund man naa am sax diwul waaye yow xamato ko parce que da ngay na am fu leen tase woon rek wala fu leen bokkoon nekk wala demee non xamato ko gisato ku ko xam xamo lu bok ci mom xamo ñakoy don xamo dara lu aji ci mom bu bobay dang nga koy saraxe rek denga kon loolu loola moy eh, atté ba ca lool légui nak boko saraxe ba paré mu feñ wala ñako wara war a ña nga xam leen bu boba da ngay dem ci ñoom wax leen buñ àndee ci sarax ba wo tiyaba ja ah baxna buñ ne la ñun bëgguñ sun alal sun alal bëgguñ nga saraxé ko dañ ñuy fay kon bu waaye nga fay leen yow nga wo yoolu sarax ba wa yastahillu dana dagan lu kull xirdin der akala bob lekkoon nako bi ghibatin ci jaw aw qadfin wala xasfe wala xaste aw satmin wala ngaa jala feñ na nee nak nag der bo ne daf ko lekkoon ci jëw walla ci xas nit ki wala ci ŋàññi ko wala ci saaga ko wala ci tuumaal ko dégg euh, nga nga nga xas nit nga saaga nit nga tuumaal nit nga jëw nit nga fenal nit yooyu yëpp day dugg ci wàllu der yàq deru nit ki waaw wala sax loo xam ne dafa aju ci moom nga ayibaal ko dégg nga loolu ak tooñaangi der la euh, koku da nga wara dem jéggalu ji waaja waajoojee nga xamne ne ko toñul ngeen nga jew ko wala nga xast ko wala nga yàqub deram da nga wara dem jéggalu ji ko tuubal ko te lolé nga ko defoon ndax lolou mom amut lu dello delloo nit man day buma ko tuumaaloon njaalo bu ma demee ba bëgg a lolou mënu mu ko jël diko dello delloo amul lu dello parce que du luma jël faaw da ngay dem rek nga nga jéggalu ko mu jéggal la dégg nga waaye loolu amul lu ñu delloo comme alal nga xam ne dañ naa la jëlaatal alal di nga dem delloo in kaana nem nekk na nag xaadiran di aji teew waa ma in fukkin daal nem ñàkkeef na ko fal yuksiran na bari xayran aw yu laan lahu ndax lee moom yaji dana am shay an dara yu addi lol dana joxe xaq kullihim aq képp ci ñoom bi ci moom mustaxfiran bir muy aji jéggalu wala yar ju te mu yaakaar xaf wa rabbihi njëglu boromam nee na nag bu dee ne waaja ma nga fa moom moo ñuy wax kon ngay dem jéglu amma nag bu dee waa ji ci boppam nekkatu fi benn faatu na wala daal yow euh, xamatu fu mu ne waaw man ne da ngeen bokkoon koñ masalan mu tuxu wala da ngeen bokkoon fu leen nekk nekkatu maanaam nekkatu leen xamatoo ci moom fu mu nekk kon nag bu boobaa loola moom xam nga mënee suuta dem ci ña koy jul doon naan am ndax amul lu ñu del leen doo nga fa nee na looraan def benn ci lu baax nga yokk ko ndax bu yamal xiyamé ah nga am loko fay ah bu yamal xiyamé nga am loko fay té te ngay tuubal yalla te di jéggalul wajojé di ñaan yalla jéggal ko wa ah, néna lo dal kon bu boba moy nek safara sa bu don né nak ma ngay dund mom bo gën a da ngay dem jéggalu jéggal ko rek waye gannaaw ba nekkul di dund mom dé ko sàkkul njéggal te it yok saw yiw mm-hmm. te jéggu te it ngay jéggalu yàlla di yaakaar yàlla jéggal la wa xifduhu ak wattoom allisaana laamin min faxsha ci ñaa ci ay ñaawteef wala ci ñaawteef rek wa min qabihil qawli ak ci boni wax wal mira ak werante nekk na nee na bokk na ci li war mukallaf dégg nga mu wattu aw làmmiñam mukallaf dafa war a wattu aw làmmiñam ci lépp loo xam ne faxsha la faxsha mooy lu bon wax ju ñaaw wala bépp wax joo xam ne wax ju bon la ak lépp loo xam ne xeetu werante la dégg nga wax joo xam ne kenn day xëcc kee day xëcc fee jëmale borom fekkee xëcc fee jëmale borom euh, ñuy werante rek nee na wax yu demee noonu yépp moo kàllafa war na ko moytandiku haqiqatul qawli deug deug wax ja qabih ja ajiban kullu ma moy jep wax jo xamne ne ko da nga la haya indi borom kersa wu minhu ci moom fan la maana nga xam neena wax ju bon nak boko ko teunk mom moy jep wax jo xamne boko waxon ba pare kersa mën na la dikkel ak rus gatcha man la dikkel wax ji dañ koy wax ju bon deng nga bu dee ne nag yow nitu kessa nga wala nitu mbañum ngurus nga amna loy bañ waaw amna am na ah, ñoo faale wuñ dara mm-hmm. kon lool moy wax ju bon wax joo bañ daal ñu netali ko wax jo buñ ko waxee fi ne la ya ko wax nga am ca kersa nga am ca gatcha wala nga am ca mm, eh, kersa gatcha yu demee non rek Euh, rus caag voilà bu boobaa wax jooju dañ koy jàppi kon wax ju bon wa jawazu daganal nañ nag tasrixahu ak ak leeralam maa nga ne ak béralam ba tey indal bali indal balid fa aji gàtt xel ja in kaana nem nekk na laa yafhamu du dégg tal wi xam ne ak junj yu fii dëkk kooku dana jariñ nee na bu dee ne dafa am koy waxal te ki ki ngay waxal dafa nekk balit balit mooy ko xam ne booy wax li fekk jaaroo ca yax ba li fekk tujoo yax bi moom doo xam li ngay wax boo doon junj fii ba xam nga wala fii dañ naan junj day doy na boromum xel al ishaaratu teg fii kon am na koo xam ne kon ku amutum xel junj doyu doyu ko wala ko waaw faw la ngay wax euh, da ngay toj yax ba mu doog a xam loola nee na kon ku demee noonu moom maanaam nga jaar ak moom ci baat yoo xam ne dañ koy jàppe ay baat yu ñaaw loola bu boobaa lislaam du ko bañ waaw tey fi mu doon nii eh, am na jangal, xam tey boo ko doon jàngal boo ko doon jàngal eh, boo ko doon jàngal sangu farata boo ko doon jàngal sangu farata nga ne ko boo yéene ci sangu farata booy raxas sab sawukaay fa nga yéene moom mën naa bañ a xam boo moytul sawukaay mooy lan boo ne ko dakkara du ko xam boo ne ko pëy bu dee jigéen la buy raxas am lay fa lay yéene moom du ko xam day jar nag nga laa nga maanaam nga tudd loola nañ koy waxee ci wolof <laughs> mu leer nañ moom ngir mu man koo xam kon bu boobaa da gis ne yow buñ la doon wax dañ naan ah diw kat baat bi jëfandikoo dafa diis dafa ñaaw wala dafa bon waaye nag gannaaw ba ci kaadaru jàngale la te it ci kaadaru ki ngay waxal boo tujjul yax bi du ko xam bu boobaa kon dañ koy euh, nangu dañ la koy nangul foo demee noonu Eh, kon lool yi lu am solo la lu jar di eh, ràññee xaqiqatul mira'i deug deug werante inda man fa kan xamna dara xamna juhudu juhuudu xaqin weddi ak deug baana ma qad zahara gana ba mu wa dafuhu akuk jañam bi baatilin ci ay wa ba'sin aku ay li kurhi qafdil jahi ngir sib suufeeg daraja inda naasi fa nit ña werante moy weddi deug Euh, mu ne kon werante mooy euh, fekk loo xam ne ak dëgg la mu leer ni la lii mooy dëgg nga di ko ba mu set teg fa janeen wax nag joo xam ne yow mi koy wax leer na lii du dëgg ngir euh, yëkkati sa daraja ak ngir bañ sa daraja suufe waaw kon maanaam weddi dëgg ba pare teg fa ay neen ba bëgg ba pare bëgg saxal neen yooye nag waaw ba pare bëgg saxal neen yooye ndax lan ngir yëkkati sa daraja ngir it suufeel daraja yi ka ngay jàkkaarloo ngir ne boo nangoo dëgg googe euh, mën nañoo jàpp ne yaa nekk ci toor loolu mën naa wàccee sa daraja ngir nga ngir loola nga lànk dëgg googee loolu la ñu tuddee werante nee na loolu it baaxut yàlla musal kon mi ngi taxaw foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi nga abonné nii nga koy defee mooy noonu ngay seen